ci Sénégal dëkku gay ne njaay mooy sunu gaal li fi junne gësin dëggal ma ay ci mi ngi doon jërë ngeen jëf kontaan nañu bu baax a baax a baax a baax Saint-Valentin euh, tey euh, nga xam ni mooy lundi 14 février 2022 Saint-Valentin euh, bis bi nga xam ni moom la ñu moom la ñu wax ni ñi amoureux ñoom ñoo te xamuñu ne bis yëpp ñi amoureux ñoom ñoo ko moom waaye tey daf cee gën a fës Aba maa ngi lay siyaar nuyul ma sama waaj Karim ah, ñoom am di ñoom Balla ak maa ngi leen di béggee bu baax a baax Cheikh Tidiane ah, Ibou Dida maa ngi lay kontaanee sama waaj yi et eh, ki nu mu tudd ak ah, ki ah. ma dikkee maa ngi lay siyaar bu baax sama waa maa ngi lay kontaanee lu bare bare bari ay te ñëwaat ci seetu Sénégal ñëwaat ci showroom bi ñëwaat ci li nga xam ni lépp looy jaay wax naa ni bëgg mu jar fii nga koy teg KFC waxoon naa ne ñu indil ay KFC tey KFC dafa def benn ab bis bu spécial ci bisub tey gi bisu mbëggeel bisu bëggante mu def ci promo bu dooy waar waaye daal di ci def ay xéwal yu am solo waaye au bi nga xam ni mooy Casamance 16 moom itamit dafa ñëw daal di si ci bés bi nga xam ni mooy ndox mi nga xam ni ku bëggante wala nga bëgg ñu bëgg la euh, wala nga am koo bëgg ndox mi ngay waaye ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa alfal alfaltik ay xar xaar leen xaar leen of ay eh, eh. maa ngi ci ñëwaat léegi maa ngi ci ñëwaat léegi dugg ci gën cee yaatu ba mu gën a yaatu waaye ànd ceeg waa Wave tey dina am ay téléspectateur li nga xam ni moom mooy xaalis bu baree bare bari bu dee appel bi baax na waa régie da ngeen ñu koy bàyyil mu ñëw te defee ñu mën a roof appel bi bu baax a baax baax ah ah waaw kay waaw kay waaw kay yéen rek laa déglu salaamaaleykum dërëm salaam mm. abaa di la nuyu di nuyu Mamran di nuyu képp koo xamante ne rek yaa ngi jàkkaarloo ñun du ñu seetaan tey nag di bis bu màgg boo xamante ne ci bisu mbëggante eh, ñuy màggal eh, feetu bëggeel képp koo xamante ne da bëgg nga bëgg sa yaay mbaa nga bëgg sa jëkkër mbaa nga bëgg say doom rek ñu ngi ànd ak yow di la wax ni bonne fête di wax ne loolu lañ leen di nuyoo ci lënd bi di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi ñuy seetaan. olfactif Baye Tabouracine waaw kay olfactif Baye Tabouracine moo ñu indil ay xeetu gamme de parfum eau de ay xeeti parfum yu am solo xeeti parfum yu fort xeeti parfum yu neex waaye xeeti parfum yoo xam ne kilifa yi xam nañ yan mooy ay parfum uddi yi nga xam ni tarkal la authentique bi la ay xeeti parfum yoo xam ne authentique bi la parce que parfum bi nga xam ni mooy montal euh, boo demee ca France euh, tarkal la nga xam ni parfum dëgg na ci réew mi amul ku ko fi représenté ñoom rek euh, ñoo ko fi représenté yàlla yàlla defal leen jàmm ñoo ñëw li ñu gunge ci plateau bi waaye ànd ceeg wave wax ni fayal sans stress dinaa ci ñëw léegi dugg ci ba mu yaatu ba mu gën a yaatu ànd ceeg o bi nga xam ne mooy Casamance waaye ànd ci ak ñi nga xam ni ñoom ñooy waa KFC bàyyi euh, la Sédima euh, foofu c'est ma famille euh, ñii ñoo ñu gunge tey ci seetu Sénégal Mamran noo def. waa maa ngi lay fay di la wax ne la sama xarit di nuyu dërëm. di nuyu ñi nga xam ne ñooy teewlu émission bi nga xamante ne nii indeeti nga loo xamante ne nii lu baax ci doomu aadama la muy parfum ndox tamit kenn ku ne xam na ne dafa baax ci doomu aadama kon donc day day jaadu ñu décortiquer li ne ci ji waaye bala ñoo décortiquer li ne ji aba tey dañuy nuyu waa Caaray di nuy ñi nga xam ne ñoo nuy seetaan di nuyu waa Yëmbal di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi nuy bëggee dëkk yi nga xam ne ñooy bëggee émission bi yëpp ñu ngi leen di bëggee di wax ne namoon naa la ni nga def baax na lii laa def ci saint dinaa jug wane sama sañse euh, loolu xam naa ni ci kanam a kanam la Ibou Dida bu ma jugee rek na nga ma seere samay dàll seere sama tubay seere ci semis bi nga xam ne moom laa sol lépp lépp payet la ah maa simpalul nag lépp payet la c'est simple lii feeñ sama yaram la wallahi maa sexy ah Ah, euh, ah bis ah, yow ndeke du man rek. ndeke du man rek a sexy. naa ko bis bee ko laaj ah, bis bee ko laaj bis bee ko laaj. bisu mbëgg wax maa ngi. yàlla na ko jël leen dërëm moom laay waxal bu leen ma jël dërëm laay waxal. correct dërëm laay waxtaan kàlla Saint-Valentin ay la ay la la. kese kese wax. mu sëñ fi mu ngi jàkkaar mu ngi kër ga di ma bala nga ñëw kontaan na ci ñëw gi <laughs> bu baax li ngay ñëw moo def lépp dërëm nga fomm wala nga déclaré moo ma indi ba ci buntu bi est-ce que nekkul ci buntu bi moo ah, moo ma indi ba ci buntu bi eh, lu ma def neex dërëm la dërëm eh, eh, du BMC dërëm la en jàmb bi ngeen naan ay kii kala ndax BMC du BMC BMC dërëm yaay dërëm bu TFM moo ngi maa la wax li ku mënul bawoo lu yàqu yow d'or ba la tarkal ak teen ba xam nga rouge d'or bu ànd ak teen mhm. euh, dërëm bëgg nit koo xam ne da actualité mhm. nga topp ko kese bu ñu nee Saint Valentin nga ñëw sol sa ci seet bu weex xam nga tey te euh, ñuy wax ci couleur u di wax ci Saint-Valentin xam nga nit boo. nit daal waaw mu ngi nii ci suuf daal ruus laa ngi nii yaa ngi gis am na lu ruus daal am na lu ruus daal yaa ngi nii am na ruus ah ba moom moo jëndi. ayca <laughs> El Hadj Malick bu baaxee nga may ñu clip ñu seetaan ko te ñëwaat léegi ci plateau bi wax naa ne ci showroom bi euh, lu waay di jaay bëgg mu jar wala nga koy wane bëgg mu feeñ fii nga koy indi ñu jaayal la ko wala ñu waneel la ko ba àdduna yëpp teg ci seen bët. moo tax euh, ñu ànd ak partenaires yi nga xam ne ñoom la ñu àndal tey waxtaane nag li nga xam ne mooy mbëggeel mhm. Saint-Valentin dinañu waxtaan ci dërëm euh, mu wax ñu fan la jógee ak lan moo ko waral dinañu wax waxtaan ci Mame Rane mu wax ñu fan la jógee ak lan moo ko waral ku ci juum ah nga xam ne damaa tàggatoo ak yéen da ngeen koo yëgul rek léegi gàm yéen laa fii dëkk léegi yàlla na yàlla defal ko jàmm yàlla jubale ko ak borom këram wooy am solo yow laa nopp yow laa yow laa nopp dañ ko takk rek ci semaine bi ci topp ñu demee ci liñ dem yel ba ñëw ci la ah, mooy lii waaw mooy yooyu mooy yooyu xam nga liñ demeel moom ah, boo fa jógee man nga lu ne man mm. nga fa jógee way ba réew mi yëg ne yaa ngi ah, ku mu sa jaar si liñ demeel ah boo gisee ni di dem di mel ah, li demee te da nga parce que xam nga lan fi fekk ay da ci li dem na way bu ah, ah, waaw waaw da xalaat avant dama laa dégg bërki dem nga wax lu am solo da wax loo xam yaa ngi ci ca kaf waaye dafa am solo mhm. mooy bu nga dem ni demee xale bi lu mu def rek danaan ko mais ah damaa dal damaa dal dama xadde mais dërëm <laughs> xale bu góor buy doxaan xale bu jigéen mhm. xale bu góor bi moo koy nax baab ko ba doxaan ko. waaw mais bu ñu commencé génn. xale bu jigéen bi da koy bëgg. waaw xale bu góor bi boobu. Euh, tarkalla mu ngi dem di wuti euh, keneen ak leneen ak yooyu uh-huh. mais bu ñu sëyee ñoom ñaar ba hmm. dem ci lune de miel bi xale bu góor bi day mel ni mu ngi soog a bëgg loolu lan mooy lan mooy def loolu mais xam nga góor yenn sax ku jigéen ki dugg ci biir duus nga nga nga nga ah. kase ko <laughs> waaw <laughs> astaghfirullah xam <laughs> lan moo waral loolu mooy que ni bëggeel dafa nekk loo xamante ni daal euh, kenn mënu ko expliquer ay jooy la des fois ay ree la des fois yenn saay mu neex lool yenn saay mu naxari loolu mais gis nga jigéen nu mu lay gën a miin da gën a bëgg. Mm-hmm. góor nag moom bu lay gën a miin moom xelema nga ci leen ndax yàlla moo leen bind ñu yor jikkoy gileem xam nga gileem day nekk ci garab garab gi mën koo suur ren ba déwén. mais fi mu nekk xam na du fa jógee mën na lekk ren ba déwén garab gi du jeex. mais mi ngi ko tiim garab gaa ngi naat mais xel mi mu ngi ci garab gee nga xamante ne benn ah, xob kookoy góor kookoy góor. Ah, waa jigéen yéen gileem xel kii leen ngeen yor. Ah, jigéen tamit ku ci nekk dangeen ngeen foog damay laal góor ñi bàyyi jigéen ñi. jigéen tamit jikko yi jinax la ñu yor. pax boo suul ba yaakaar ne suul nga ñu sulli beneen. Mhm. waa jikko yi jinax du ñu rek yaakaar naa ni ak téléspectateur internet yi ci mhm. page Facebook bi am na ñoo xam dañuy dugg ci ligne bi mhm. euh, nu waxtaane li nga xam ne mooy mbëggeel lu waral Saint-Valentin ku war a Saint-Valentin ak naka la ñuy féete Saint-Valentin loolu moom yaakaar naa tey mooy thème bi mhm. ku maîtriser wul thème bi bu dugg ci waxtaan wi waaw jarul nga ci dugg aba ah, lan moo waral Saint-Valentin waaw li waral ku war a see kon moo war a Saint-Valentin ak naka la ñuy féetoo Saint-Valentin waaw ñi yàgg bëggante ah, ñoom moom bis bii ah, xam nga mbëggeel gu amul triché ah ñoo ñoom moom bis bii abaa dinaa la wax lenn am na mbëggeel yoo xamante ne nii. da ngay dugg ci kër fekk jëkkër ak jabar toog ñu mel ni ay locataire. Mm-hmm. axa kay duñu waxtaan mbëggeel dañ koy dundal avant di ñëw. Mm-hmm. ndax nit amoo lu gën a jege sa soxna. Mm-hmm. yaakaar naa di waxtaan ak sa soxna. Euh, di ko miinal sa bopp loolu dafa am solo. ah moom kay miin na la bu yàgg. miin na la waaye ah, mu gën laa miin. Ah, mu gën laa miin waaw. moom miin nit moom weesuwut moom. waaw. Ah, waaw waaw waaw waaw ñun kay ñoom ñaar ñun ñu xamee ñun ñu xamee. Ah, ah. waaw kay gën laa miin Amady ah, waaw kay gën laa miin waaw ngeen fiq kaf. fiq rek man daal am na couple yoo xam ni. c'est c'est c'est c'est pas possible. am na couple yoo xam ne amul sens parce que nga tëdd sa jabar. Mm-hmm. mu sañse wala mu xeeñ neex. waaw munoo ko wax ni lu dul da nga koy envoyé SMS. Ah, ah loolu loolu am ñoo xam sama kii envoyé SMS sax xëy na dafa bëri sax mais am na ñoo xam ne noonu la ñu mel mënuñu apprécier te apprécier day doxal couple. Mhm, mhm. tey sa jabar sañse même bu ñaawee sax ne ko yii ci rey toj nga fi. waaw kii ko jay ko. li li yu wax yor bul def dara waaye dee ko jay. waaw dee ko da nga ko tamit euh, jëkkër ji war na parce que say ñaar la. Mm-hmm. ku góor ki dafa war a jonge ku jigéen ki dafa war a jonge mm-hmm. du ku jigéen ki rek moo war a apprécier comme ni sa a ah, tey moom sa allah tey da nga semise <laughs> oh! même bu chemise bi kii sax dafa neex si xol sa jabar tamit sañ sañse nga apprécier ah tey fi nga génn loolu dafay neexal say te communication bi am na ñoo xam ne mënuñu ko ñëw rus xaw ma lan la. loolu la bu ñu tooñee tamit dañ ñuy baal nan ñuy baal. waaw nan ñuy baal léeg-léeg dañuy tooñ. nan ñuy baal waaye bis bi dañ ci waxtaanee la lépp. dañ ci waxtaan li mu bëggee rek dañ koy waxtaanee ci bés bi tey xam ngeen ni bi yàlla sàkk ak liy xew xam ngeen ni seetu Sénégal actualité lay topp ak njaay ñun bu ñu jaayul rek ña nekk ci actualité bi di ci waxtaan. donc loolu la ku am événement ñu jaay ku am produit ñu jaay lu waaye am ñu jaay salaamaaleykum bu fekkee am na ku nekk ligne bi allo. maaleykum salaam maa ngi wootee ba Diourbel. yaa ngi woote fan. Diourbel. ah plateau baa ngi noonu da ngeen nuyu ñi fi ñi fi nekk ñëpp bu ko defee ñu doog a dugg ci waxtaan wi. waaw mais mais sama gàllankoor bi moom sama. sa waay moom dafa ma neex ba nga xamante ni. maanaam daa neex ñëpp. <laughs> moom moom moom moom moom beneen affaire la même mais kàllaama ni waaw ah. ni muy waxee man moo ma neex. ancien nit la. <laughs> wallaay ba même bu may bëggalee ceebu jën naan ma nga dànk ko fii nangam nangam <laughs> ndox moom si waaw mais nag tey moom. <laughs> léegi nag moom damay damay bëgg damay bëgg sama séeri koko. jaajëf jaajëf jaajëf sama séeri koko ma lool. loolu na. maanaam moom ñu jaar fu ne. ndeysaan ma boobu boobu aw ma benn dërëm. maanaam ñu may wax naan ma ay même ay mbokkam am na ñu ko doon wax naan sax ay kii amul benn dërëm. yooyu la ñuy def nangam nangam. yooyu def maanaam moom mu ne moom bëggee rek la. mu toog di xaar ba tey. waaw boobu ba léegi nag mu nekk ak man mu nekk ak man ba tey yàlla dogal tey wax dëgg yàlla maa ngi sama teraanga. léegi nag léegi nag maa ngi sant waaw. léegi nag comme moom bi da bi fi leen nekkul. Mhm. waaw. ci la fi nekkoon ba leen fekk ko fi. Mhm. waaw. tey ci bisu Saint-Valentin bi. Mhm. waaw loo koy waajal yow lan ngay def pour pour moom mu mën a bëgg. wala su ma su ma la koy dëgg tey damaa xëy tey jox ko ne ko dama létt ji. Eh ma maa ngi fii ci kër gi nag di ko xaar ak cadeau boo xamante ni maanaam bu ñëwee c'est ça surprise la. sur surprise la. li mooy lii muy ah, gentleman mooy bëgg lii gentleman mais mais doo si li mu wax sànq nii xale bu jigéen bi li mu wax sànq. waaw li mu wax naan maanaam boo amee tamit da ngay dem xoolaat feneen. Mhm. ah man de xoola man de xoolaguma feneen. maa ngi maa ngi yow ak man ak man ak man maa ngi yow. xoolagoo comme bul xool. maa maa maa maa maa maa ñaw ayca kon baax na yàlla yàlla dafa leen jàmm comme daal bu xool bu baax a baax baax xam nga toog ci ah. plateau yi ah. Ah. ak di woote ci plateau yi naan boobu ba tey man xooluma feneen loolu ah daa yomb yàlla yàlla yàlla suturaal rek waaw yàlla yàlla suturaal xam nga guddi li tax suñu borom defar ko ah sutura la moo tax waykat ba ne sutura yaay sutura mën nga wax wax nga lu am solo yàlla noonu yàlla defal jàmm ñu koy nuyu Aba di wax ne ñun lii ñii ñoonu bàyyi ci mbir euh, mbir mu ne mm-hmm. xam nga nit di la bëggee fu nekk lii dañ koy jaajëfal di ko wax ne que yàlla ko yàlla jubal ak soxna si waaw lu am na solo addu garal bu leen bu àdduna neex neex wala ay problème am ba ngeen fàtte mm-hmm. way Youssou Ndour doon way ah. nit ku dul juum amul amul ci ci waxat ah, nit ku dul ku dul juum amul nit ku dul déedéet nit ku dul juum nit mag dina juum ndaw kilifa kilifa dina même soldat dina yàlla buur bi moo dul juum moo tax nañu suturaal juum te jombul jombul kenn bu fekkee dangaa jékki mu dal nangul li juum waaye olof nee tamit ku mën nañ ko bàlle waaye ku kii ku <laughs> waaw waaw ay ca <laughs> eh, <laughs> bu fekkee am na keneen ku nekk nañ ñu ko jox laata ñuy dugg ci waxtaan wi balaa ñuy jël internaute wala ñuy jël téléspectateur di ko laaj lu waral Saint-Valentin mhm. luy Saint-Valentin ku war a feete Saint-Valentin mhm. ak naka la ñu war a feete Saint-Valentin dañ koy wi suñu biir ñun ba noppi am na ku ne ñu salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo oui waaw ku ñu lay siyaat waaw ku ñu loolu siyaat noo tudd ak fooy wootee. Fowru Ibrahima. dee du Ibrahima de. ah jum. kay. <laughs> loolu am loolu ah, fi ñu nekkoon mooy <laughs> euh, naka lañuy ñuy féete Saint-Valentin lu waral Saint-Valentin ak kan moo war a féete Saint-Valentin. Euh, ñi nga xamante ni dañoo bëggante te dëggu ci. Mhm. xam nga mbëggeel am na ñoo xamante ni mbëggeel bi intérêt da koy lan. am ñoo xam ne seen mbëggeel dañoo bëgg rek te yàlla kese kese tax. Mhm. li waa ji wax rek laay indiwaat. Mhm. ba ko ndaw si di bëgg moom amul tubay. xaar ñu xaar ñu waxtaan yow tamit xaar ñu soxna si sant yàlla julli ci yonent bi sant ana foo ak fooy wootee. maa woote Mbour. noo tudd. dama koy leb. dangay ngay leb tur. Ah. boo ñu bu ñu saa. waaw waxal jàmm ah? bu ñu manqué de respect. Mm-hmm. loo ñu wax loolu. Ah, bu ñu wax loolu waaw yow dara. noo tudd. da nga koy leb. ñu la koy lebal waaye eh, tamit loolu wax dañuy fay. ci télé bi. ah. dërëm war ta raar ci télé bi. dërëm billaahi macha allah ci télé bi. ngi mel lu war a lekk. macha allah dégg am nga borom kër. man waaw. ah far ngay sëy. Mbuur. <laughs> Ah. ñaata at nga sëy. amaguma at. Ah. ñaata weer. xaaral <laughs> yàgg moom am at avril ma am at. avril nga am at. waaw. ci waaw tey sa ci tey ci feetu Saint-Valentin bi tey naka nga ko xalaat nga feete ko yàgg sa borom kër. ah di ko ñaan feete ko ci jàmm salaam. feet bi fe noonu ngeen koy feete da di def. lu ngeen daawul def wala li ngeen di def da ngeen ci yokk dara tey wala yow loo xalaat rek dinañ ko def. lu ah ah. xalaat yaa baax naa ko dëgg. ay waay na sama xel mi rek ay eh, ay kuy conseiller sama xel mi. lu ma xalaat rek ngeen def ko. waaw. Eh. dina da eh, ah, ko. ci digg kër laa man loo xalaat rek dinañ ko def. dawul de. ah nañ ko petit. coupé leen ko. nañ ko petit moo ko dawul. bàyyi leen ko. ah xam nga dinañ la coupé. dinañ la coupé. ayte wax naa ni tey euh, plateau bi dina yenji euh, dina yanji loolu te dina ne ah, ah allo allo. ma ne yaa ma laaj ma koy féetee ma wax la ko. féetee ko la neex euh, sa borom kër la tabarkalla te tey feetu ñu bëggante la. donc féete leen ko ñu leen neex. nu ngeen ko féetee rek. kenn du ne guleet. waaw déedéet du ne ko nu ne. ku nekk ak na ngay féete. waaw dërëm a ngi nii day féete ji bu noppee. ba mu baax maam raa na ngi nii day féete ji. loolu jarul sax nga ñu mais abaa damay dugg. waaw woor man. <laughs> ah yow ba a dugg mooy euh, Abba. Mhm. dañuy wax jigéen ñi nga xamante ne ni tamit euh, bu nu sañsee dem aw xew. bu mhm. summeeku seen jëkkër ñëwagul. dañuy ba pare dindi maquillage waaw dindiwaat maquillage bi xew ba xew wala ñuy génn ba génn seen yére yi am na yoo xamante ne mbuut yi ah mbuut yee euh, seen jëkkër yi. xam nga tamit boo boo dee da ngay sa jëkkër ko war a njëkk ah, gis waaye sañ dem aw xew boo ñëwee summeeku deset ti sa ab Ablaye Wade ah, dindi maquillage bi di ko xaar ah, <laughs> ah, ah, loolu day wàññi mbëggeel ah gis nga gis nga maam ran xaw ma ndax xale yu jigéen ñi yéen xam ngeen ko wala xamu leen ko mm-hmm. li gën a mën a énervé góor sama bopp laay waxal mais peut-être ñeneen ñi ci sentir seen bopp mm-hmm. nañ dugg wax ñu ngi ci Facebook bi mm-hmm. ñu ngi nii euh, suñu numéro euh, téléphone 77 549 52 90 mën ngeen a dugg woote li gën a mën a énervé góor ci sëy mooy ñu campagne ba pare waaw campagne ya jeex waaw yi passé ki ah. gagné gagné waaw yow nga bëgg ko téye ci tisetu ki gagné wala ki nga xam ne moom la ñu gagné ak ci sërëm waaw nan ah, noo ko si ak tiset heure boo sangoo tàkkusaan a ah, sol ko loolu di jàpp a dindi ko ba mu set sànni ko na leen kenn na dootu la nag eh, te xale jigéen ñi xam ne wuñu loolu bàyyi ñu ci xel am ñoo xam sax sër ak tiset bi bari na am ñoo kilote comme joueur bars ni nga koy waxee kilote la ñuy teeroo seen jëkkër ak euh, bëdi te loolu moom sama soxna la moom Sadio Mané laa ko ñun ñëpp la du moom kese de Sadio Mané ko ñun ñëpp la ñun la parce que sama soxna de ba sama kilote yi may dem di sol di fu moom lay ah yéen <laughs> ne ko yow de ma takkee ñaareel yaa ma encouragé mais tey jour déedéet te ni mo la ya toll rek Sadio Mané rek di baaxul Eh, en tout cas en tey li ñuy waxtaanee moom loolu rek la waaye nag euh, faaw may dugg di génn. Euh, ci li nga xam ni moom mooy euh, olfactif Baye Tabou Racine. nga xam ni xeeti parfum yi am solo ay xeeti parfum de classe ak la représenté ci réew mi. bokk na ci li nga xam ni mooy bi ñu teg nii suñu wet di gris montale la wala montal la wala Mancera da koy représenté Nicolay ak maître parfumé ak li nga xam ni moom mooy les gantiers ak li nga xam ni lépp rek loo xam ne ay haut de la représenté ñoom mën ngeen a woo ci 33 848 65 71. wala 77 755 60 60 la lépp loo bëgg ci xeeti ay pap parfum yu baax ay parfum de classe boo demee ci ñoom euh, di nga ko fa mën am nga yëg sa bopp bu baax a baax am na ko ne ci ligne bi salaamaaleykum allo <laughs> allo. waa euh, kii ñu ngi jégalu Pape Sylla xa mbaa comme mbëggeel gi bokkoo ci. Mm-hmm. yàlla yàlla defal jàmm. mais mais mais mais mais dafa mel ni kii bu ñu ko joxalee micro. waaw. bu toogee ah. fii bu ñu waxtaanee ci mbëggeel. waaw dina am dara. waaw mën naa am dara. parce que moom euh, film yi muy joué yëpp. waaw mbëggeel la. moom di ci souffrir. moo xa bay moo bay mbëggeel. te moom vieux am dëgg loolu la. moom vieux am dëgg moom mu ngi ci xale yi. moom ci yooyu yëpp la ne. waaw dafa mbëggeel et l'homme indil ñu fii chaise. indil ñu micro indil ñu grand bi. waaw salaamaaleykum. dafa mbëggeele dafa mbëggeele allo. surprise la pour pour ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. kenn du wax dañuy toog rek ba mu génn. adduna amul wax ak ñu ko bëgg nag. waaw waaw ak am bayre te dafa baax. ak am bayre nit ku baax ku bëgg jigéen ku yëg jigéen. respecté comme fi mu ñëwee foofu la ñor. bëgg jigéen ah. li xale di wax rek bisaab bi bëjë bi dafa tombé ak bisaab bi ñor. Ah. comme nanu ko bëjë. waaw allo salaamaaleykum. allo waaw. Ah, allo. allo oui. allo oui salaamaaleykum. waaw yaa ngi jàmm. allo. allo. yaa ngi ñëw. ok waaw ok allo salaamaaleykum. allo waaw ça va. ñu ngi lay siyaar baax ku baax. waaw yaa ngi jàmm. mbaa lépp mu ngi dox. waaw mu ngi dox doxagul dara doxagul de. allo tax. waaw. wàññi sa télé wàññi sa télé wàññi sa wàññi sa wàññi ko bu baax a baax wàññi sa télé. waaw. wàññi télé bi. allo. wàññi sa télé bu baax. ñun kenn déggu la. waaw wàññi wàññi naa ko wàññi naa ko. est-ce que mën nga koo fay. waaw fay naa fay naa da ngay jënd. fil bi nga ba branché. génne bi ci biti. <laughs> waaw dinañ waaw. fayal compteur bi waaye ñëpp am jàmm. waaw waaw waaw moo gën moo gën. fayal compteur bi ñëpp am ah, jàmm ah désenteur bi. ñu ngi lay siyaar baax. a foofu. ngeen def ak coono yi. ah ñu ngi nii ñu ngi nii de ay amoureux rek fi toog de. waaw. waaw gis ku ci ne ci ñun ñi toog am na kenn koo bëgg. waaw loolu am na. waaw maa ngi toog sama jabar nii mais xam nga ñu ngi waaj Saint-Valentin mais nag ñu saint waaw même ñun ñii ñoom la ñuy wudde ñun ñii de ñun yóbbu la ñuy wudde. ah ndal ah. waaw waaw ah, naa ñu xool. mais nag def leen ci xeweli nag. ah. man def leen ci xeweli xeweli. waaw damaa ngi xaar ni waa Wave. ah. yow comme mooy transfert bi nga xam ni booy envoyé ak booy jot munoo fay dara. ah. moo gën a yomb moo gën a neex moo gën a baax dañ lay envoyé léegi nga jot ko léegi. waaw. Mhm. maa ngi leen di xaar ñoom bu ñu yegsee rek incha allah lu ñu ma envoyé rek ma bokk ak yéen. ñu bokk ak yéen ñu bokk ñu lay seer ba baax. boo amul loo jox sa soxna rek mën nga koo teg rek. ambiance rek ambiance waaw. waaw lépp ambiance waaw ah, wàccal ci suuf rek. teg su ah, rek boo amul ko jox ah nga wàcc ci suuf. waaw wàcc di nga yéeg. ah jël wàcc ci suuf yàlla yàlla xem doon yàlla yàlla xem doon léegi. Ah, keneen di ñëw ci ligne bi nañu dem xooli benn clip te ñëwaat léegi daal di yeggal suñu waxtaan. waaye ngeen bañ a eh, bañ a fàttali tey. au Casamance 16. waaw moo ñu gunge ci Saint-Valentin bi. waaw moom mi au Casamance mi ah, dafa am solo. Mm-hmm. Aba mm-hmm. dama lay wax ne da ngaa teg ci table ji lu am solo. Mm-hmm. gis nga parfum dafa bokk ci li yokk mbëgg. waaw xam nga sa soxna jigéen la mel ku jigéen fa ku bay woon netta tu bay doog a ñëw. loolu daa dara ba day wàññi mbëgg. olfactif bàyyi taburaas yi. waaw moo ñu tàqaleeg uxuuxu. Ah. waaw boole ñoom uxuuxu waaw. xam nga xet bu neex daa bokk si jàmm yàlla mm-hmm. léeg-léeg nga dajeg nit wax dëgg yàlla da ngay da ngay yërëm njëkkëram boxataan mm-hmm. bi da ngay mel ni dayta dita boxa akkaña bu dee rek <laughs> yàlla nañu yàlla musal ah yàlla nañu yàlla musal ñun daa jigéen day xeñ lu neex nanu ñëw fii ci mm-hmm. bàyyi kii ah nu mu tudda ofaltif ofaltif ah waaw a bokkuñu ay kii a bokkuñu daa ah, bokkuñu. Ah, a na a yal a olfactif. a yal a ko yàlla defal a tabaraasin. ol bay tabaraasin. neel ol. ol fak fak tif. tif bay ah tey loolu boo ko waxee néew. du jóg bay bay bay bay bay. damaa càng bay tabaraasin damaa càng dama ko doon bëgg wax càng. waaw mais mais olfactif. ah ba bay ah, li nga bett jàpp. boo ko tubtubli mu jóg. ah boo ko tubtubli mu jóg. boo rambee almeri boo ko waxee njëkk. waaye ñu ngi leen di jaajëfal di wax ne Aba danoo dugg ci loo xam ne euh, sama soxna si ma koy nuyu Khadija. Mhm. waaw saa bu ma xëyee di ko gën a bëgg. seen bi mooy seen bi mooy seen troisième Saint-Valentin wala. déedéet yàggul. yaa ñu ngi doog a kii nan ñu ñaanal yàlla rek defal ñu jàmm. man moom daal man bu ma la gisee ngay wax dafay mel ni da nga am cinq ans de mariage wala yooyu. waaw déedéet loolu décidé na Aba xam nga. xam nga moom daan yaa ngi way yaa yaa ngi saalit lu ne yaa ngi koy def membre dama la dama la dama la bëgg Khadija sëgg jooy si giree xadee ngi eh Khadija dama la dama la dama la bëgg ngeeni sëgg jooy na ngi li ñuy xool ci doomi gër mi yaa ngi ci yow Khadi laay woyal ku la min du min que ne ndaanaa na ngi dama ka bëgg abaa kooku laa bëgg accam ah, man de su ma woyaloon woy bi rek doy na. ah yow bokk bu a ko mënut a woyal it am na koo xam ne seetaan nga ko woyal. baax kooku mooy caatu am. léegi yow boo yeggee da koy wayal nit ñi dañ la xam ci fecc ak ci waaw ci mën sa boor ak tabarkàlla tey <laughs> accessoire yi ñuy xaar ci ay xumbala ki ay tànn béer ki tama yooyu yëpp am na ci yow boo yeggee xalaat ngeen di nga ko dewal ay parents bu baax bu baax wàccal ci suuf jooju dina am mag mag mu wàcc tey du yéeg waaw xam nga gaa ngay wàcc ba ci suuf naan ko wàccal ci suuf léegi damay ragal wàcc ba ñu mën a yéeg ndax xam nga du mës a xam nga yërëmul xam nga fu mu jëm <laughs> yaa li ngeen man ci ñun waaw ah. mu neex neex ba ngeen yaakaar ni ah. juróomi fan la benn fan la mais dañ koy continuer lu ci waay di def nañ ci def loo mënte xam ne yéen bisa ñu ñëw abaa ah. ñun suñu bos dañ koy continuer toujours Saint Valentin la euh, ku ci mel ni bàjjen Faat lay Fall mu ngi lay seetaan sa fans bi mm-hmm. moom kooku tamit euh, mu ngi toog ba mu toogee ba tey jugul mm-hmm. ñooñu tamit ñu jël tudd lañ ci bis yu mel nii mm-hmm. ndax tubaarkàlla ba nga wàcc am 14 ans ba am fa fanweeri at ak lu teg ñooñu ñu jaral sargal lañ ci bisu mbëggeel bi exemple lañ de dañ ciy feete mbëggeel di leen wax ne joyeux fête Saint Valentin képp koo xamante ne rek ba nga wàccee ba tey jugoo ñi war nañ la sargal ci bis bi ay exemple lañ de mhm. bu ñu waxtaanee amour moom faaw ñu waxtaanee ñi nga xam ni waaw euh, tabarkala gis nga femme bu toog ci sëy mhm. euh, lépp fekk ko fa te bi muy ñëw fekk fa dara. waaw kooku da bu ñuy wax ci bis yu mel ni exemple daneen ko war di jox mm-hmm. waaye xale bu góor boo xam ni bi femme bi ñëw tamit dara fekk ko fi bu ko fi lépp fekkee nga woo ko ne ko yaa moom lépp mm-hmm. mën ko bokk ak moom mm-hmm. mën ko koo jox kooku tamit feet yi dañ leen wax am na solo di wax seen i xeeti baax baax parce que waaw am na solo ki nga wax am na solo abaa xam nga yow mii rek dañ ciy jël exemple ndax saa su nekk ku la dégg euh, sa diggante ak sa soxna yaakaar naa témoignage bu nekk da ko ciy def yaakaar naa euh, seen mbëggeel rek yéen firnde na lépp may ñaan yàlla defal leen jàmm. mariage forcé la de yaa ngi mami déedéet. déedéet déedéet déedéet xam nga sa diggante ak moom. sama gàllankoor boo boo waaw waaw déedéet. ah man man man daal mami laa xam man xaw ma xaw ma sagal daa ngi seetaan waaw bi yaa koy yëg yaa koy yëg waaye man mami laa faral waaye Mouhamed yàlla na yàlla defal ko jàmm mm-hmm, mm-hmm. waaw may ñaanal yàlla defal leen jàmm aba mm-hmm, gis nga jigéen dafa am solo ci kër dëgg la gis nga bu démb yaay nga daan dégg yaay jaboot nga daan dégg mm-hmm. booba booba boo duggee ci kër mère jaboot moom nga daan dégg ci kër yi mm-hmm. boo ñëwee da daawoo xam ne ñin jur ak ñin jurul loolu bu daan am ci kër yi mag yi mag ñooñ dañ doon boole mm-hmm. ndaa bi muy am ci kër yi abaa ndaa ndaalu mag ndaal ëtt mm-hmm. ñëpp ci la ñuy naan benn télé moo daan am ñëpp ci la ñuy seetaan mm-hmm. boo duggee ci kër xam ne kii mooy mooy mooy maire jaboot mm-hmm. boobu dafa amoon solo maire yooyu nag liggéey yoo xam ne moo moo wàll ba ci seen doom yi waaw loolu euh, jigéen ju baax dafa am solo aba dogguma la sa li mu wax rek laay dolli parce que nee nañ ndaal yooyu ni ngay ñëwee tànk naan sa moroom tànk naan mooy tappe xol yi ba kër gi njaboot gi ñu mën a tas waaw xam nga léegi ñun dañ ko bàyyi léegi ñun benn pot lañ fay teg ak benn ndaal ku ñëw naan Mhm. mais léegi amul. lii lépp lu mag ñi daan def daal ñu bàyyi nañ ko moo tax moom la ñuy jënd cinq pag wala six ku ñoo jël dem. voilà ku ñoo jël dem mooy tey ku am. sa bopp ngay dem boo dimbali keneen ki. dëgg la différence bi amul te da nga daan tànk ci ndaal it naan. mën naan booy waaj jeex kenn ne la maa lam sa biir rek dëgg la ay ah. eh, ah, eh, ah, réew mi neexoon na. éducation yàqul may moom buuba amoon mu def ci suukar. may ma buum waaw may moom buum fekk bu ñu attaayee. moom nga daan naan mag ñooy waaw yow mi xale. waaw dañuy pare attaayee bi da ngay raxas ba daan daal ka sonn na ci. moom mi rek moo la intéresse boo paree wis si suukar. abaa mbuur mu mis suukar loolu li ma jaraloon amul dara lu ma jaraloon ah? yàlla xam na loolu te maam daan li yàq ci réew mi dafa bari gis nga tey gis nga tey maam daan bu njëkkaan mhm. dañ daan taaj ak midi ah? waaye balaa ñu daan taaj dix heures maire ah. dañ daan sóor ak yooyu mais am na benn ñeex bu ñu daan def ci pain bi waaw bu doon ñeex tonne ah, yow bàyyi ma tonne bu doon ñeex abaa diwlin ji rek bu doon diwlin man dama ci ba mooy tonne bi abaa diwlin jooju ak diwlin ji bokkatul booba ab diwlin jooju comme farmace barki bàyyi la xam nga bu ñu wësee ba pare tonne bi lañ daan jël mburu yi yor yoor bi defal xale yi ñu te bu njëkk mbëggeelu bu njëkk ak léegi du benn léegi xale yi dañoo ñeme bu njëkk dangay bëgg nit doo ko ñeme wax say papier ngay jël di bind je je t'aime comme un poisson qui nage dans l'eau muy lu yàgg. dama yàgg nag wolof sax da ngay tiim sa gel ci wolof ne ko mën a yor mel waaw ah, ah, ba lees lees ba lees lees bi mu fi am da nga daan xëy suba ba ngoon di wuti lees lees pour 31 boobu 31 am na valeur. da ngay xëy suba ba ngoon. mus na noo abal tabax boo xamee la fa ne ci mbalit aba bi mu génne mbalit ma pare soirée euh, baal bi ñun ñëpp dañ doon nelaw ndax li ñu deg ci mbalit mi avant muy génn fi euh, fi doon baale mhm. coono bi ñu am moo tax baal bi ñëpp dañ ko doon nelaw suñu baal mun ñun benn baal mës naa yàqu ci ñun mhm. dañuy baal ñu abal ñu fu bees tax benn kër gu bees tax ñu def ay fiilu courant bi yooyu mu génn ñu waroon ko arrangé ba mu dugg suñu benn xeetu jàpp ci fil bi. laahi courant ji masque la kàddu loolu mënul ñàkk. waaw loolu mënta ñàkk avant lu mu zee la. waaw moo bay mbëggeel. bëgg bëggante moom waaw moo bay mbëggeel. waaw moom tool bi ñu doon bay mbëggeel fa la kon bu ñëwee fii war nañ kaa laaj ci mbëggeel. Cheikh Ndiaye waaw xaar mu ñëw. wax war a na am léegi lan moo tax Cheikh Ndiaye bëgg seen mbëggeel. waaw mbëggeel rek lay dee de. tax Cheikh Ndiaye lu mu zee la. daf koy réussir toujours. kay kay kay kay kay kay ma kaay rek. Ah, <laughs> mais ci la nga maa ngi sant. yaa ngi am jàmm. dërëm léegi moom 100 francs nga. yokkal rek di ko ma jël. kilifa gi nuyoo naa. maa sant yàlla ba. mais Aba. mais grand. mais félicitations. jaajëf waay bëggee liggéey baa ngi rafet. ñu ngi koy gis. di ci bëgg. xam nga yow ñun ak yow dafa yàgg. démb la barki démb tey di doog a ñëw. ñu xamante fu ne nag ba bitim réew ànd nañu tukki balaa ngay xam jikko doomu adama ngeen ànd tukki ba ci yow mii sax ànd nañu Maroc nga yóbbaale ay géej ak yëpp ay yéet <laughs> dërëm fu mu dem def fa bu <laughs> ñu jógee ñu jógee Maroc di ñëw mu jënd ay meew ma naan may mais dërëm meew yi am na Sénégal bagage yi daa diis bu jël bagage yëpp yenn ñu ko <laughs> donc waaw vraiment maa ngi leen di féliciter ah liggéey bi nice na waaw mais ba may ñëw maa ngi dégg nga may jow nga ne damay souffréloo jigéen ci Saint-Valentin la ñu nekk waaw ah, ok ñu ne dar ci saint nga dugg waaw ma ni waa nu mu demee ni waaw ba pare yow ñu gis ni film yi ëpp yi ngay joué. yow am yow boo am boo fi nekkul ku am xaalis. waaw yaa ngi nekk di ci am koy bëgg di souffrir wala di ko souffrir loo wala yooyu. sa diggante ak amour lan la. voilà léegi non déjà. bala ma ñëw sama diggante yëpp il faut waaw bala mais d'accord mais balaa ma ñëw sama diggante ak amour dama lay wax benn affaire. ban équipe mooy sa équipe yow. champions league championnat. Real Madrid. ok Benzema xam nga Real Madrid équipe la. Mhm. xam nga Benzema kenn du ko yóbbu mu góol. wala mu latéral droite neuf nga koy yóbbu. soulèvement trouble du sélection maanaam trouble la te trouble boo gisee comme équipe de football. am na capitaine am na kuy góolu mm-hmm. am na kuy def latéral gauche am na kuy def latéral droite mm-hmm. tey bu fekkee scénario bi dafa laaj ku am xaalis mm-hmm. ku war a doxaan ci xale yi man la. bu dee dafa laaj ku sol caaya yey guro takk ay ndomb ak kii. saa neex la. Ah. bu dee dafa laaj miikar boo xam day nekk ci suuf di ruux. saa neex muy kii. alaaji bu dee dafa laaj yambar. Euh, booy booy sow la. <laughs> bu dee dafa laaj mandikat. Ah. mbay doose la. Ah. bu dee dafa laaj meer bu pànk. maa de pis la ah maire buy xuloog saa neex nay kum euh, kii la euh, ko donc c' est ça troupe la nu yore d'accord voilà donc rôle yi may faral di jouer mhm. nga ne lu ma booleeg mbëggeel mhm. man yàlla moo ma booleeg mbëggeel xam nga tey bu ma ñëwee nga wax ma ci bisu Saint-Valentin bi Abba Saint-Valentin. li France la woon xam nga lii. Euh, moom la lay wax nii. Eh, waaw Wally la woon. waaw li Wally Dama ville la ñu ànd ñun ñëpp di wër euh, dem Espagne. Eh, dem eh, Belgique ah, dem dañoo sonnoon de. bii mën laa rendi. bii <laughs> bii laa ñëw. Euh, bii laa ñëw seen hôtel. weex tal mayut diw. saa neex di ree bay jooy ma ne ko loolu mu ne ma ko waroon ba sama mag lañ samay xarit mais ma ci marqué damaa mës a damaa a nekk sama chambre ma liw lool abaa jël mbaajjom ci chambre am ne ma grand ma ne koy looy sàngoo mu mën naa sàngoo drap bi man xol bi rafet na ñi samay kilifa lañ samay xol bi rafet na surtout saa neex waaw moom waaw waaw waaw donc donc waaw donc c'est ça kon tey bisu Saint-Valentin bi mm-hmm. abaa xam nga historique Saint-Valentin fu mu jógee lan la Valentin benn abbé la woon bu tudd Saint Valentin. Mhm. abbé. Balla Diop. Ah, abbé la eh. kan moo fi ah? ah, ma man dégg. ah la woon. xam nga xam nga xam nga bu njëkk ba. Mhm, mhm. bu njëkk ba. autorisé wu ñu woon officier yi maanaam français yi européen yi. ok officier kese lañu autorisé woon nga am jabar. boo dee soldat simple. wala nga doon caporal wala nga doon adjudant duñ la autoriser nga am jabar parce que dañuy bañ nga dem guerre dee fa sa jabar tumuranke wala sa njaboot tumuranke te ñu am luñ leen dimbali. moo tax dañ naan bàyyi ba nga nekk officier nga xam ne dootoo demati guerre nga takk jabar mm-hmm. bisu 14 février nag abbé Saint-Valentin moo ne soldat yëpp tey autorisé naa leen ngeen dem ci fi ngeen bëgg ku ci nekk tey na dem ci ku mu bëgg soldats yi wàcc nañ dem ci seen i seen i seen i seen i soxna mm. seen i coro ñu ñu nobanteeg nangam fa la Saint-Valentin jógee am na nag yeneen ak yeneen yu ñu ci wax yu bëri mais am solo lu ci am solo mooy bisu mbëggeel boobu ñuy màggal mm-hmm. mbëggeel lu tax ñu war koo màggal aba xol mooy doomu aadama mm-hmm. xol mooy nit mm-hmm. moo tax yàlla nee na man sax xol laay fay dëgg la tey bu fekkee gis nga jigéen mu féexal sa xol abaa tey yàkkamti ngaa ñibbi fekk sa jabar sa kër sa xol dafay neex kooku yàlla mënu koo fay moo tax ñu koy màggal bis bi pare di ci joxe cadeau bien que chaque jour Saint-Valentin la ci ki nga bëgg mais tey bisu spécial la bu dee juróomi dënnu gerte caaf sax yóbbul ko sa jabar sa jabar bu dee benn tàngal sax na la ko indil day mel na ay milliards ci moom mais kan moo ko war a feete kan waaw ñëpp ko bëggante rek. waaw célibataire yi bokk waaw waaw Pape Sylla kon am nga. waaw célibataire Pape Sylla ba léegi célibataire ah ba léegi mu xamaat. am na ku ma ko xamal de. ah. ah, ah, ah. non non non kon kon kon kon garaaw kon garaaw tey bis bii tey. ñëpp ko war a féete Aba ah. génn féexal seen seen coro yi. jigéen ñi féexal seen borom kër yi. Mm-hmm. ba pare Aba bisu tey bii. war na tax gis nga man ndeysaan bëgguma sax di ko fàttaliku. sama soxna bi génn àdduna. wallahi azim. dama doom dem ba fàttali mu tudd. Oh. xamatuma woon sax ne donnaa la tudd. parce que moom bébé laa ko doon wax. Mm-hmm. wala ma ne ko moom mm-hmm. kër. tey Sénégal bi tey day tëb jabar naan ko soxna astu. mais ne ko moom kër xolam ndeex wax ju neex sarax la. waaw loolu na wax ko moom bébé wax ju neex sarax la. du dëgg. Mm-hmm. donc tey bisu tey bii nag góor ñi bégal jigéen ñi. jigéen ñi bégal góor ñi. Mm-hmm. bégal nag bëri nay façon. bégal ci lekk bégal ci ànd loxo ak loxo. ah bégal ci lépp. waaw waaw waaye nag bu dee célibataire nga moom. bul ko bégalee ci ci ci. waaw waaw waaw lu am na solo. am na solo yow abaa mën nañoo bégalee yëpp waaw def ay fleur ak yooyu boo paree nga xam a yëpp ay yëppay dem voilà ah, voilà moom lañ jënd lekk yóbbu bi sama genre bi sama genre bi yow célibataire la ba tey ah? Ah? looy xaar fi ñu toll nii li may xaar kun ah kunde du wàcc abaa yàlla lay xaar looy wax ci loolu kunde ah kunde wàcc kunde lu nit mën ci lii lay wax dañuy wax ay fi toll nii léegi ah doo ñëw toog ba fii hmm. euh, faaw ñu tëb Saint-Valentin bi daal di ñëwaat euh, ci Cheikh Ndiaye dañ leen a gisaat ci lu ngeen mën dañ leen a gisaat ci lu réew mi bëgg dañ leen a ci lu ñu namoon ci yéen waaye dafa mel da ngeen indiwaat théâtre ambiance théâtre dëgg dëgg dëgg waaw xam nga Sénégal tey Coupe d'Afrique bi da koo sauvé mm-hmm. dafa dindi stress yu bëri. ñëpp jóg mais Sénégal dañoo stressé woon. dañoo seetlu ndeysaan da ngay xool nit koo xam ne daaw xamoon nga ko mu reetaan lool muy reetaan. Mm-hmm. ren nga gis ko mu tàng xol lool. dafa stressé. te defe naa ni euh, euh, ñun ku ñu xam-xam ne lépp la ñuy def. Mm-hmm. ñun théâtre populaire la ñu dañ daan bâche ci mbedd yi di fay fukki dërëm. gars yi dañuy fukki dërëm mu am ñu am ay vingt huit mille bu ñu fayee borom sabar yi fay borom mix sonorisation bi après deux cent ñu des ñu jënd ataaya toog te comédie rek lañ ba pare ñuy ñëw drame di ko def compétition. région de Thiès su ma saan def compétition. Soleil Levant moo ko moo ko gagné. Mhm. du dëgg donc ñu ne pourquoi pas parce que waxtaan nañ ci ak suñu directeur sa directeur di suñu xarit ñun ñëpp. ñu teg ñaari cin. mën nañu ko. parce que suñu liggéey la. boo ñu woowoon ci football war nga woon ci karaté du ñu dem parce que mënuñu ko waaye lii suñu liggéey la boo ñu woowee ci comédie ñu andi ko boo ñu woowee ci ñëpp a ciy ñëw da ci ciy ñëw yow abaa da ngay ñëw temps yi gis yaa ngi yëngal yow yaa ngi yëngal gis naa nga mm-hmm. donc ñëppay ñëw bokk ci biir ñu bégal waa Sénégal parce que yàlla moo ne ku bégal doomu aadama bégal la kon ñu métier bi ñu yor métier bu noble la mm-hmm. métier bu noble la mm-hmm. loolu moo tax ñu andiwaat ñaari ci nii te saa fuñ toll nii nee na yaramam daa tàng xam nga saa génnegul dara barki alxuraanul karim saa ko mu déegul walla azim mais mbaa xam nga ni suñu génération ñun ñi bëgg théâtre ñëpp saa neex a tax ñu waaw ndaanaan la mais loolu sant yàlla la man balaa may dugg ci affaire humour ak yi man saa neex daf maa yàq ci lu bare bare mais xam nga saa neex ku ko tax a théâtre mhm. baa bu fay yaa ngi dégg waaw ah Aziz xam nga ku ko tax a théâtre mhm. Abou Camara yaa ngi dégg ku ci nekk rek am am nga ay ndaanaan ay ndaanaan man kay maa fakka solo rek ba dal ci waaw waaw man moom damay fakka solo ba dal dama daan ay yëfi intellectuel yow moom xam naa bu ñu man dama doon jàngi wàcc su ma ñëwee fekk seen répétition toog yow moom xam naa bu ñu xoolee ki ngay roy Ignoris ay Jean-Claude nekk say idole yow. man nag xam nga yàlla dafa dogal aw ma idole. man la yàlla loolu la ma def. Ah, waaw aw ma ay idole wala ay plat préféré wala ay couleur préféré man daal yàlla yéen a tuddee sama idole. sëñ Dia ñu ngi lay kontaanee ba. yaa yow waay ngay def rafet na. Diaw euh, wuy ma boo demee tey bëgg la waaj. Ah, waaw commencé naa gisoo gàdd naa ah, sama kër. ak yow tamit ñu bëgg soxna si waaw waaw waaw jaay waaw. rafet na. waaw kontaan na yow nag. yow. ah man la. ki may bëggal barki sëñ Saliou koy bëggal ji waaw man wala naan wala lépp laa ko yóbbu dama ko naan ba pare waxtaan ak wax ju neex yàlla baax na moom ne ko moom ke tu sais que mm-hmm. eh, yow yaay sama xol yaa ma féete kanam féete ma ginnaaw kaw suuf wër ma kon fan laay jaar eh, eh, <laughs> yàlla jàmm yàgg ay ci bu dee am na ku nekk ci ligne bi nañ ñu ko jox bu kenn nekkul ci ligne bi tabaarkàlla Euh, El Hadj Malick boo ñu mayee clip euh, sama waa ji euh, Ablaye ñoom Guèye Teranga waa Soleil Levant yëpp yëpp yëpp ku lim jum maa ngi leen di kontaane foofu laa bokk man Soleil Levant laa bokk donc maa ngi leen di béggee bu baax nañu dem xool une page de pub daal di yeggali seetu Sénégal ay ca c'est parti tu n'es qu'un gourmand passionnel et exclusif et c'est toi KFC pour la Saint-Valentin? Dites-le avec du poulet. KFC, it's finger king good. ay te ginaar yaa ngi noonu ginaar yu neex yi nga xam ni ci réew mi lañu juddoo ginaar yi ci réew mi lañu màggee ginaar yi ci réew mi lañ leen yare ñoom lekk géeg lépp ci réew mi lañ ko defaree la sédiment ñoo ko defar ah kon jaaru nañu Anta Babacar Ngom moo dem ba Amérique loolu waxtaan ak américain yi ne leen lii ngeen am muy KFC dafa war a ñëw ci Sénégal mhm. indi ko biir Sénégal ginaar yi sedd nañ ginaar yi sell nañ ginaar yi aw nañu yoon ba pare ginaar yi lépp alal la Ah. barkalla yàlla na jàmm yàgg waaw lii day baax na ci réew mi abaa ah, lii baax na ci réew mi lii dafa am solo mm-hmm. ndax ñii bu ñu ñëwee ci réew mi yaakaar naa dañuy yokk ci réew mi mm-hmm. waaye wàññiwuñu ci réew mi xam nga kii ah ni muy def ginaar gi ni mu koy tijjee nii waaw ah bu la yàlla dimbalee waa ñii ñuy def am ci ah, waa dinañu si table ji dinañ ñëw ah wóoroon naa leen sànq de. Ah, ah, ñëw ñëw ñuy dem xaw ma xaw ma lan la ñuy xaar nii. prix ni Valentin bi kay moom KFC moom macha allah. waaw ah, dafa am comment eh, jigéen ju ko mm-hmm. taaj tey lépp gën a belli gën a neex ndax nii ma ko gisee daal macha allah. Mm-hmm. dafa am comment envoyé sama dàll yi ma sol nii. Mm-hmm. moom la jël capture envoyé ma ko ne ma juróomi at a nii Saint Valentin. <laughs> bàyyi ma ci xel bàyyi ma ci woon sax xel nag yàlla baax na. ah yàgg na moom daal di yàgg na. ah dama yàgg waaw mais bàyyi ma. ah ak mi ngi may dossier yëpp ah lu ma ci xam te ma ni benn. <laughs> dëgg dëgg la yàlla baax na euh, moom lañ may wax nii naan ma euh, juróomi at a. mais rafet na bu ah, sa waaw yàqu ci dara. daal yee yàquwul moo tax booy ah. jënd. fexeel ba am lu baax. waaw yee yàquwul moo tax nit ñi dama fàttali ne ma juróomi at a ngi nii. waaw euh, cinquante heure bi egsee. waaw nga dóoraat ko. wax dëgg yàlla lu baax yàqoo sa xaalis. waaw yàqoo sa xaalis la ma juróomi at a ngi moom day génn kon anniversaire la nag. waaw anniversaire ñu ko ko féete waale rek yàlla waxul kenn dara yàlla baax na ay jéego bi xam ni mooy euh, Casamance moom itamit tey dafa ñëw ànd ak ñun moom itamit dina gunge eh, ci li nga xam ni mooy feetu tey feetu Saint-Valentin bi nga xam ne ñi bëggante dinañu lekk waaw ñu def ñu lekkee ba noppi mhm. dinañu naan naan au Casamance bi moom la ñuy naan au Casamance bi dafa am solo Aba mhm. Aba da ngaa duggoon sànq foo xamante ne dafa am solo mhm. ah muy li ci kër yi Aba a ah, nan waxtaan ak ah, ñi nga xam ne ñi ñooy ñooy jigéen ñi ndax bis bi dëgg la bi ah, bisam mbëggeel la waaye dafa am solo jigéen ñi xam ñoom tamit ah, rôle yi ñuy joué ci kër abaa di nga ñëw ci kër bëgg a fay yendu ah, fekk fa jigéen mu découragé loolu ba nga ne dangay ñibbi mm-hmm. jigéen mooy téye gan ci kër nan delloo si waat seeni xel mm-hmm. jigéen du siis jigéen day mën a joxe ñam mag ña loolu leen xamoon mm-hmm. waaw kër yi léegi bëri na yu ci xew loo xamante ne xewu ci woon démb doo xam ñi dëkk ci kër gi ak ñi ci dëkkul woon danoo jàppoon ñëpp def leen benn bu doo boo dóoree doomi jàmbur am nga ci sago pour dóor ga kenn du la jubal am nga ci plein droit mm-hmm. léegi nag boo gisee xale yi léegi xamatul fa nu war a jaar mooy que ne ñoom pour ñoom da ngay bokk ak nit ki ndey ak baay sax yow doo am sañ-sañu jubbanti doomam parce que yaay yi yaay yi léegi ak yaay yi démb yi bokkul yaay yi démb yi boo musaan a jubbanti seen doom seen yoon newu ci léegi nag bul dóor suma doom moo am. amul woon démb da daan dóor doo sañ a ñëw ne ah diwa ma dóor. léegi dañ ci ñëwaat léegi yeggali dafa mel ni am na ku nekk ci ligne bi. ah jël ko jël ba pare na ma ci bëggoon sànq sama jël yaay wax ak moom yow yaay wax ak moom léegi nga ñëwaat ci léegi ñu bi salaamaaleykum. aleykum salaam. salaamaaleykum sang bi. maaleykum salaam. noo tudd ak fooy wootee. ba ngay mooti seet maam Demba ak maam. fan. poste Thiaroye eh, la woote. Eh? ah poste i comme que yow nañ la bàyyi ak ah, maam Raan. sa koñ la. ana nga ñoo bokk suñu dëkk. ba ah, ba am nga jàmm. waaw Raan borom jàmm maa ngi ziar. waaw mais maa ngi lay ziar waa poste Thiaroye. loolu ñu. Cissé. waaw ma ne maa ngi maa ngi maa ngi lay ziare. Eh. maa ngi lay delloo ziar Raan. waaw mais waa ndeysaan ay ay jàmbar la. waaw waaw waaw mais tey jii bi sa mbëggeel de lan woote tey de te xam naa ne foofu ngeen nekk ci poste Thiaroye yéen a ngi koy dund. waaw daal ñu koy dund nga de sama dëkkandoo bi de wax ci suuf nii rek. ay Aba wallaay maa ngi jéggalu de allo. ñu ma waaw ne ma ne ñu ngi nuyu waa poste Thiaroye di wax ne kontaan ci woote bi. ndeysaan dëgg la Ram dëgg la Ram waaw déedéet da ngeen da ngeen suñuy ndàmm da ngeen suñuy tiitoon. ndeysaan. ndax abaa lii mu def ni am na solo. daysaan ndax élève bu tal nii. waaw. nga ubbee nii ligne. Mhm. kon du def lu di leen sant di leen gërëm. ndeysaan. ñu ngi gër ñu leen di gërëm bu wér a wér. ndeysaan ndeysaan. abaa. ñu ngi lay siyaar. abaa ñu ngi lay siyaar. delloo naa la ko. ngeen amoo dara ci saro waaw jaajëf waay Philippe waay ay doom banlieue lañ di la wax ni sa bëgg sa bëgg Thierno Birahim ndeysaan ndeysaan lu mu wax loolu suñu bëgg yi ndeysaan ndeysaan kon yàlla na la yàlla yokk amiin yaa rabbal alamin ndeysaan yàlla la yokk wéré amiin maam comme man mu ko rus maa ngi gën wàccaare gépp a baax amiin amiin amiin amiin yaa mu ne gërëm sama yaay ya ano anan wuyul wuy ma wuyul waaw waaw waaw feet bi kan nga koy feetal tey waaw maa ngi koy delloo sama yaay ja ah yow. non non waay booy. Ah, ah. ah nii bu toll nii fer waaw maa ngi koy delloo sama yaay ji. am na fu rek kese. ah ñun ñu tam suñu yaay waaye am na fu mu kese. feetu yaay. tey du fête eh, ah amura ah. kii xool sa xol bi tey tey fête des mères. xam naa réseau bi waaye béréb amoo dara. amoo kenn koo xam ne mën nga koo woo amoo kenn koo xam ne mën nga koo woo ngeen toog naan ataaya même bu dee naan ataaya. an kay sama soxna. nu <laughs> mu tudd ay magam jëmm. soxna fu mu dëkk. jaaro yii. loo koy jox tay ci Saint-Valentin bi di di yaayu Fatou Bakary Sène. yaa ngi dégg. Eh, dégg li am na njaboot macha allah. waaw kii njaboot. lan nga koy jox lépp. lépp nga ko jox. lépp jox naa ko à part weesoo sama yaay. sant nañ yow moom xam sa soxna sa biir biir kër gi muy sëy moog sa yaay fa dëkk. bëggoo lu métti sa yaay. bëggoo benn yoon lu ko métti. ndeysaan moom bu nee sama soxla ne. Ah, waaw sa <laughs> waay. dërëm. yaay baax na de yaay baax na de. waaw mais soxna. waaw ah. ndax boole baax. boole eh, xënee. Eh, neex boole. waaw. Eh, kenn ñi ngay toog nii ci télé bi fi mu koy bëgg nañ suñu yaay ñun ñëpp ay kii naan ay boo yoree ñaar fukk. waaw da ngay jox sa yaay fukk. Ah. jox sa soxna juróomi. Ah. juróomi nga xaw wala. Ah, waaw boo yoree ñaar fukk da ngay sa soxna ñaar fukk moom ma jox sa <laughs> <laughs> <laughs> li muy jox sa yaay ko. lan indi loolu. 3 heures demi dañ ñoo xam moom. fi maanaam nekkoon. bàyyi nga bëggoon faa dugg. kii yàlla da ci woon na rek nekkoon dafa am solo. parce que bu njëkk yar bi dëkkandoo yi dañ ciy participer. ñu jaay day participer léegi nag loolu amatul appartement fermé enfant fermé su génnee toj dëkk bi parce que bu génnee li koy li koy fab bi day day yomb mm-hmm. man olof sama olof dafa xóot mm-hmm. euh, fab bi mooy li koy yóbbaale daal parce que tey ji bu njëkk sa dangay nekk sa bàjjen si biir kër gi famille bi yëpp nekk ku nekk Euh, participer ci yar bi. Mhm. defal nii waxal nii lii nga ci deret bi nga bokk lii ngay bañ ñi mais léegi amatu waaw éducation de base dañ ko dugal ci bëggeel parce que daf ciy joué. pour man appartement dafa bokk ci li gën a neexal sa yi fi ñu na parce que kenn xatu ci am na ay conséquences neex na mais am na ay conséquence parce que ku sañoon wéet ak sa jëkkër mais bu njëkk yaay danaan participer sa yaay bu nekkee ci kër nga nekk ak sa jëkkër sa sa jëkkër ñemewuloo su dóoree yaay ji ñëw taxaw te léegi loolu yëpp am moo tax li am di am mbëggeel ci yar sax def ci am parce que boo mm. amul éducation doo xam nooy téye sa jabar mais est-ce éducation bi moo gën bu démb bi sama xalaat laay laajte parce que éducation bi tey sa papa ak sa yaay ak professeur bi nekk ci école ba mm-hmm. mais éducation bu démb bi man dama yàkkoon da doon perturbé xale yi ah. parce que ku nekk daan yar waaw da daan romb kii mu yar kee yar kii yar xale bi daa daan jaxasoo xam nga xam nga jom ak fulla démb dañ la ko doon def ci yow. Mm-hmm. ak jomba jomb mm-hmm. xam nga tey abaa li am léegi amul woon démb. Mm-hmm. démb dafa amoon jomba jomba am rus. damaa rus ah, léegi pour nga dégg sax dama dama kaa rus a def. léegi bëreetul lii du ma ko def dama kaa rus a def. waaw da nga koy jomba def. parce que démb dafa amoon loo xamante ne ni tey euh, ba ci wujje yi dafa am lu mu doon wujje. sama doom du ma nangu sa doom gën ka. da nga daan liggéey si sa biir kër yow loo xamante ne nii say doom. tax nga kay def parce que doomu doomu aadama bu nekk doomu baay dafa neex mhm. may nuyu sama baay yi ma bàyyi kër gi mm-hmm. ñoo ñooy samay kilifa man sama doomu baay mooy sama papa ci suuf amu sama sama man sama sama sama taw mooy sama sama sama man mm-hmm. parce que sama papa gaañu na ka fa nekk nii mooy sama papa mm-hmm. tey li ma doon jàpp moom laa war a defal sama papa man moom laa koy defal. man ak samay doom baay ñun ñun waaw waaw loolu day am. loolu day am loolu day am ah, ah, la déglu loolu loolu. suñu sama yaay daf may aaye mu dugg sama kër tànta man sama boobu teg sama tànk. sama yaay boo fa duggee bàyyi na la àdduna àllaxira man aw ma ku ma bokkal ngay bàyyi ku la si eh, eh, yow la moom dafa wax ba somme am na ñeneen te loolu yëpp si yaay yi la rek waaw muy lamin muy Malick muy ah. Mambey muy Neemareem duñu wax ñoom ñu ah. la ñoom ñi duñu wax yow yow yow ñu ngi mi nan la ci lii yow loo mën a am say doom baay la gënal aba aba doom baay dafa neex aba doom baay dafa neex ki nga xamante ne yow yaa ngi bokk ak nit ki baay mhm. te loolu moo tax bi woykat bi doomu baay bu lekk reer bi baay mhm. boo lekkee reer bi xaw ma fu may reer a ji ñoo bokk fekk na reer bi doy bu dee sa doom baay tuur nañ ko ci bël waaw loolu ak bokk la daan doon parce que euh, abaa dinaa lox benn affaire gis nga mag ñi dañ doon boole ci ci ci lekk yi dañ si daan boole xale yi ñu xam ne ñoom ñoo bokk lii mm-hmm. gis nga ay xale bu doon nekkee ci kër da nga leen di boole ñuy bokk di lekk maam raad mm-hmm. euh, temps yi la addu man pour man àdduna bi temps yi la gën a neex uh-huh. bu njëkk ba amoon na jiiroo léegi amatul waaw déedéet boo jiiroo ceeb bi day doy waaw te terewul jiiroo loolu dafa nekkoon loo xamante ne ni dama dem dafa bokk ci nit ñi jiiroo ah booba déedéet day doy xamul tax <laughs> aba est-ce que xam nga ne ñun bi daan daan football mm-hmm. dañ daan pousse ceeb bi li may wax waa caareen ka dégg dañ daan puus ceeb bi doo ko mën a football booba tefes gi booy ñëwee da daan añ ba diw gi jaar sa fii abaa kañ nga gëj ah, gi jaar daan puus ceeb bi doo ko mën a football ñamu mbaam amoon na ci réew ñamu mbaam amoon na ci réew booba doylu amoon na xaalis bi am na barke waaye léegi lii daal dama kaa dóor dama kaa lëfal yooyu ngay dégg xaalis bi doo xam fu muy jógee moo tax barke amatu doo ko lijjanti yamale am na solo wax naa ni euh, tey day bis boo xam ni bisu fête la bu ñu lekkee suñu KFC ba noppi naan suñu eau Casamance yaakaar naa ni war na noo sangu ba set toog xeeñ lu neex donc olfactif euh, bi nga xam ni bàyyi taw racine euh, moo ko indi ci réew mi nga xam ni ay parfum haut de gamme lay def ay parfum de classe lay def loolu lépp nag boo ko bëggee am mandaan li koy mhm. jëndee yaakaar naa ni boo amul compte wave xaalis mën cee génn nga mën a fay say bor euh, fayal ak no stress wala fayal te doo fay dara yaakaar naa ni tey fet bi mën naa bañ a neex caw bu fet bi neexee tey c'est grâce à KFC au Casamance mhm. olfactif by tabu racine ak wéef moom mi nga xam ne moo ñu yombalal jënd ak kii war naa cee yóbbul ah, yow war naa cee yóbbul Xadisa mhm. kii nag damaa xamul nu may def mhm. waaye ah, dinaa def le tout pour daa ah, jëm cee yóbbul sama soxna sële mhm. waaw lii dafa am solo aba xet gu neex dafa am solo te bokk na ci li nga xamante ne day tax nit ki dina mën a di di mën a dina mën a kolewu xam nga nga dendeeg nit di ko bëgg rek ak xala te du te du la ko mën a wax lii nag boo ko jàppan boo jàppanteeg lii non non kon dende day bëgg nga tafu ko li dafa am solo yàlla dafa bokk ci ci ci fête bi sa tey ñu ci bari yii la ñuy jënd naka nga waxati sa tabo xam nga man dama ol fak ol defal comme ni nga defoon kii baay taborasil bay taborasil ol ol fak fak tif actif. bay tabaraasin parce que man en matière de anglais je suis très fort. Mm-hmm. et tubaarkalla macha allah. <laughs> na gaa yi dem jënd si. daal di dem jox seen ñi nga xamante ni dañuy bëgganteeg ñoom ay cadeau ndax suñu table tey dafa riis euh, taxi boo reeree ba suur nga naan li nga xamante ni day reesal euh, lekk bi. Mm-hmm. muy Casa Seydou eau de source boo xamante ne tubaarkalla macha allah neex na lool ndox yi ci réew mi daal mooy seen directeur. Casamance mooy seen directeur mooy seen directeur. dafa neex Fatou Nian Thian maa ngi lay kontaanee bu baax mais di souhaiter un bon anniversaire. nit ku baax. nit ku mën lu baax. nit kuy wax lu baax. nit ku gore. nit ku yaatu te mën a yaatal. Pape Diallo. ah euh, anniversaire Baye Cheikh loo dund doy. kooku suñu càmmeñ la ñu nekk ak moom ci kër gi nekk bu rafet góoru maman Ariel Diallo dundal bàyyi dadi loo dund doyul ndax tubaarkàlla macha allah nit boo nekkee ak moom nekk bu rafet bu bisam ñëwee ah tubaarkàlla. dañ lay ñaanal nga dund 111 ans sans ordonnance dundaloo dund rëyul Diallo. lii laa waaw joyeux anniversaire rek Pape Cheikh Diallo maa ngi koy gis léegi nii euh, ñoom Mado ñëpp ñu ne fa def lu rafet. di ko kenn yëgalu ma ko nag. waaw waaw kenn yëgalu ma ko. waaw déedéet xam nga. ñu man ne ma. kaay ñu dem Pape Cheikh defal ko surprise. waaw mais bu amee dañ koy woowoon. waaw waaw loolu loolu dëgg la waaye hmm. xam naa ne euh, comme ñoom dem nan yan jàpp ne ma ma yëgal rek ma ànd ci. waaw man. waxaale man man damaa sonn ñu koy souhaité joyeux anniversaire di ñaanal yàlla defal ko jàmm ña dem ñëpp euh, nañ jàpp man maa nga fa woon toog. ñu koy ñaanal yàlla defal jàmm borom xol bu rafet la. ay ci am na solo donc nañu dem xool euh, bu dee noppi nga rek Awa Gaye moo ak Magay Peex mooy Pierre Signor ñoo demoon ci fi nga xam ni moom mooy olfactif Baye Tabouracine wan ñu publicité bu doy waar daal ñuy wan li nga xam ni moo ne ca kër ga lépp lépp lépp nag nañu dem xooli ko ak El Hadj ñëwaat léegi ci plateau bi euh, bu yànjee rek ñu mën koo dem euh, xooli euh, te ñëwaat nga xam ni noo fi représenté ay marque yu mag a mag a mag ñoo fi teewal xeeti marque yu mag yi ngay dégg yëpp ay parfum haut de gamme oud bi nga xam ni mooy oud authentique bi nga xam ni tarkalla mooy brut bi boo fa duggee ca kër ga am nañ ko waaye représenté ay ngandam marque yu mag a mag yoo xam ne ñoom kese ñoom dong ñoom cote ñoo fi représenté yooyu xeeti marque tabarkàlla mu nekk lu am solo ñu wax ci KFC moom mi nga xam ne ginaar yi wax naa ni dafa set waaw daa dafa saf fi lan leen yare fi lan leen yare ah fi lan leen li ñuy dundee ah la jógee ñu dëkk fii ca sédiment daa war leen a jàpp même buñ ko toggee ba noot waaw lena ciy suy noonu fii la jógee fii lañ ko ah kon farine ah, ba sax fii lañ ko defal ah, kon ganaar yu min fii la ñoo ko moom ah, ndox mi Casamance waa ka eau suuf la. génn réew mi waa Casamance dañ koy. yaa génn réew koy naan. génn réew mi ndox mi sedd na. ndox mi sell na ndox mi day faj. ah day faj kay rek. ku wàcc sa ànd mhm. boo demee fekk borom ànd ba mu ne ca faax comme nanu topp suñu ànd te jël euh, consommé local waaw léef mi ñëw ci réew mi waaw fekkoon na askan wi sonn na lool réew ma yeewu askan wi <laughs> yàlla seen jàmm yàgg xanaa ma xool clip boo teg suñu loxo rek euh, bu ñu ñëwaatee xam naa ne dañuy tëj émission bi ndax li ñu mayoon ci waxtu jeex na. dèjà tabarkàlla Saint-Valentin gi euh, eh. bu ñu noppee fii kenn amatul jot. Ah. ku ci nekk ngi xool foo jëm. ku ci nekk a ngi xool foo jëm. dañuy xat lool maam Rane tey seetaan kenn du ko xool. ah dañuy xool ah tey nag ah, jëm ah, ma ci leen xooj lépp la ñuy xooj tey. waaw man lu ñuy xooj tey waaye du ay tànk ba. lii xool ah maa ngi wax yëpp rek. nañ dem. ñu tàggoo nañu ñu tàggoo. waay sàmm moom laa muy jaaxal. man de xool tànneewu ma la. tànneewu ma la dama laa tànneewu rek ci waaye tubaarkàlla. baaloo ji sew ji. yàlla xanaa damaa juum. déedéet man njëkk a juum nii maa. ah yow tamit <laughs> maa daan rek ma la wax. aba aba kon nañ dafa yàgg woy mbëggeel dafa yàgg ci ci ci da woy xool ma man la xaw ma lu ci topp boobu lay wax ci suuf. waaw waaw aba mbëggeel dafa yàgg ñu way ko fii ci réew mi. yàgg na ñu koy way. Euh, Youssou euh, sunu kilifa. Eh, eh, suma la de. yaa ne ma ki nga ñëw te ñëwoo yaa ne moom da ngay ñëw te ñëwoo gisuma lan la maa ngi ñëw ñu wax eggal. waaw mais mbëggeel dafa yàgg. Mhm. Salimata bi ñu koy way. Mhm. fii ci réew mi. Mhm. mbëggeel ak taxoon a jug. yaakaar naa Assane Boub mii way na mbëggeel. mbëggeel yàgg nañ koo woy ci ci. ah Salimata. <laughs> Youssou de dootu ko way mukk Salimata. ah waaw ah, mais lan. mais mais mais way wow mbëggeel dootu ko xam nga. Salimata ma ni doo dégg Youssou ñaata soirée la fi jéew fi arena. waaw ah. jéew fi euh, place Youssou ñaari yoon. waaw jéew jéew fi ay soirée privée ak yooyu. waaw mhm. def fi ay ay grand bal ay. waaw mais li mooy ci bëgg daa bëri li mooy ci bëgg daa bëri. ma ni Youssou Saint-Valentin la fi daaw géej. dina wayaat Salimata Salimata doo boo dégg. waay man bu man. Salimata wooyoo ma nu la neex. waaw dina woyaat Salimata Aba dootu ko woy. waaw baax na dañuy werante dina woyaat Salimata. dootu ko ko tere mënuñu ko bañ a woy. dootu ko tere. xanaa déggoo woy woowu nu woy Salimata. yow Aïda moo wax yow nga naan may déggoo woy woowu ñu woy Salimata. ah dina wax loolu. dégg nañ dégg nañ. waaw mais loolu loolu. loolu sa bopp la de. waaw. waaye sama yaay ko tere wa ay. <laughs> xam nga loolu woy fi kii. Euh, su ma gelle woon. kii Sofia. Sofia on verra. <laughs> on verra ça. sama yaay fa jàng tu. waaw waaw. ndeke on verra gi. waaw boo déglu bu baax du yow du Ismaïla koy wax. waaw ndeke fa waa yaayu euh, Marilou yow. mooy wax ci suuf. mooy wax ci suuf na Overa. on verra on verra ça ah, ci Overa ça. yaay Fa Diallo wax ci suuf naan ko on verra ça. <laughs> mais comme waa Ismaïla. waaw nag way nan bëggeel nag. Mhm. Ah, way nan bëggeel te nan euh, li ñu doon way lan la. Mhm. Aba. Mhm. dama lay wax ne la lu dàq mbëggeel amul ci réew mi. abaa nga togg ki nga bëgg. loolu dara da euh, gënu kaa neex. li may wax nii yow xam nga si dara. lu mu la wax waaw lu la wax day neex waaw léeg-léeg gis nga abaa gis nga borom xaalis bu nekkee ci mbooloo. Euh, borom xaalis bu ci mbooloo. bu waxee lu ñàkk xorom sax da ngay gis gaa daal waay waaw ma ma li ngeen mais yow dara boo waxee dana oh, oh wax ji bari na trop saa yi li yow daa bëri daa waaw da ngay soof ñi da ngay gaaw a soof nit ñi boo boo yorul waaw dara sax xorom boo nga sax xorom trop te yore ñuy toog fii yëpp xam ne bu ñuy ñibbi paas bi yàlla nga koy. waaw loolu wax mu neex. danaa waaw bàyyi li nga def da la koy seetal daa ah, waaye sax dégg sax waaw dégg sax. yàlla man mosal nañoo toog ak benn kilifa mu muy lépp di lépp mu euh, am ndey ku mu am ñun bi ñuy lépp ñëpp dañ doon ñëpp doon dajante. waaw gars yi di xanxataay mais. comme kilifa la moom. waaw yàlla daf koo may dara. moo mënul lépp. <laughs> lépp ñu waroon def mooy toog ñu léebal ko. ñun waaw waaw parce que ñun ñu ngi ci ambiance lépp gi moom mu ngi kontaan. waaw mais moom bi mu demee nag ba xam ni peut-être. Euh, moom ñu dañoo am faiblesse am. waaw waaw ndax dafa yor. waaw daa commencé lépp. lim ne euh, man may leen xam nga. waaw waaw day nappi. waaw day fas kanam gi. day nappi naan may leen ma euh, barkeel amoon naa benn lébu neex. waaw li mu jàpp ne mooy. waaw dafa neex lébu neex. Ah. amoon naa lébu neex euh, kii la woon kumba am nday ak kumba amul nday. waaw te da ngay expliqué. mais waaw mais kumba am nday. dafa xawoon sonn quoi. waaw waaw waaw. gars yi lépp bi lépp. waaw daa triste yi comme bañ nañ ko def ko metti gars yi dañu doon réer ah. mosoon <laughs> xam nga. Ah. solo ko ci kër gi mais gars yi yaakaar nañu. waaw li neex ak jublu ku nekk solo ku solo kay daal. waaw nit ko am xaalis daal. waaw yàlla yàlla yàlla defal ko jàmm. ndeysaan l'homme mais tey jii. waaw booy yedd ko l'homme di a gisee ku am xaaju ko wax. waaw <laughs> dëgg la ay ca dañu dem xool euh, bi te ñëwaat léegi ci nga xam ne dañoo def prolongation yokk nañ heure ba 18h. ayca olfactif te ñëwaat léegi ci plateau bi. ay tabu racine kon si li nga xeeñ sànq neex na neex na lool. mais nag sànq laa doon si waaye soo xefee dinaa jël parfum bi ak kii xeeñ parfum bi yóbbaale. waaye neex. olfactive by Tabouracé ñun ñoo nekk the official distributors of Montal Paris mm-hmm. Mansera mm-hmm. Nicolay ak mm-hmm. Tabouracé bi nga xamante ne fii lañ ko toggee ci réew moom moom mu ñor xam dañuy def special offer su ko defee ñu mun a ñëw bigalante moo tax man fii rek laay ñëw te koo xëy nag euh, loolu lañ ci xamut mooy à partir de vingt cinq mille francs da am sa coffret bu baax xoolal bëggal sa love one. waaye dañuy dem sama kër papa. mooy gi jëm na ndox. mooy gi jëm na. wuyu ma. Mhm. sama xol baa ngi flamingo. aca xet goo gépp boo demee da nga ko fay fekk wax naan lii di montaan Mansera Nicolay maître parfumeur ak li nga xam ni mooy. Tabou Racine euh, mi nga xam ni tarkal la euh, ay parfum yu am solo ay parfum yu neex ay parfum haut de gamme mhm. nga xam ni day ubbi ubbi yi nga xam ni day yokk xéewal ubbi yi nga xam ni tarkal la xeeti baax baax yépp euh, tarkal def cee nekk lu am solo loolu nga xam ne boo demee ci kër googu da nga ko fay fekk am na solo bu neex xeet gu baax mhm. ci suma ci bis bi tey mhm. ndax su ma wàccee dinaa dem tabaski Euh, am fa ma def defal ko caat ndax ma nga toog di ma xaar man il faut ma jaar fa préparer ko cadeau bu am macha allah te xam naa ma fa yii ma gis moom euh, ku ko jox sa waay tubaarkàlla macha allah du am lu muy wax euh, taboraasin daal taboraasin maa ngi am na solo ah, am na solo ba xam nga comme li la wax rek. xet bu baax moom xet gu neex dafa nekk loo xam ne dafa neex ci xol. parce que day dundal ak ruu. yaakaar naa doomu aadama bu nekk war naa am jumtuwaay yoo xamante ne nii mooy mooy lii. ngànnaay la ci ci néeg. parce que nga wàcc fekk sa soxna def ni mu war a mel yaakaar naa doo am temps sax pour génn di leen si seeti leneen jigéen ñi nañu téye góor ñi ci biir kër yi ah. fi ci seen kanam yii bu ko defee ñu am envie toog si ah kay am na ñoo xam ne bu wàccee dañuy fu ne lañuy dem di tontalaat duñu bëgg a toog seen kër waaw góor xale la boo ko naxee yaaka moom aba cent mille francs mën nga kaa jël ci góor sa jëkkër na nga laaje laaj dafa am gis nga euh, xaalis sax ci dafa am lu ñu koy jëlee ci doomu aadama waaye di laaj sa jëkkër naa ko jox ma yow damay def ni gas bi jeex ne yow am na mel ni kuy mel ni kuy buddi ah, ah, kuy buddi bisaab rek. te ñoom ah? te ñoom bu leen laaj comme kuy buddi bisaab. yow te ñoom maam la ñuy mel. waaw li nga xamee ni bu ñu defee nànk def dal. waaw euh, soxla yëpp mën nañu koo faj. mais loxo bi mën na lu ne loxo bi mën na mën na mën na lu ne baaraam ndaw bi boo ko yebalee rek man naa mën na lu ne. waaw waaw waaw dèjà dina koy jox sa bopp ko def dañuy taxaw ci buntu bi da jox ma donc donc yi ginnaaw da na nga war a lekk rek donc xabu sew man daal bu ma déggee sa wax mooy lu la raay may lu wokk du la ko may kon sama gars yi nañu préparé tey guddi gi ndax si ngoon gi nii lañ koy préparé jëm guddi gi na andi boy bu andi bu leen neexoon yéen tey jii dootuñu féetee ci benn bis bi. waaw dañuy féete le 14 ak ci ñoom la rek parce li nga wax rek la xam nga lu la raay mayul. Mhm. sa waay yaa ko moom te comme xale. góor comme xale il faut nga koy nax mën a ay clé yoo xam ne ñu ci bari ñu ngi jàpp seen jëkkër di leen def loolu xam ne dangay toog fee yow mii seetaan kii de tay ko dañ koo liggéey sëriñ mënul loolu yow yaa koy travailler tey jii boo ko travailler di nga def loo sa jëkkër loo xam ñii seetaan dañ naan da koo liggéey hmm. liggéey ko fam ko jàppale parce que tubaarkàlla macha allah góor ñi ay bébé lañ. Ah. il faut ngay aayoo. am benn problème leen fu kawe chéri bébé. sama jëkkër tuddul turam kenn xamu ko caat ak la ñuy wax te caat maa ko créé. yaa ko tuddee ko tuddee caat. maa ko tuddee caatu ami puy nga xamante ne. Ah. tubaarkàlla macha allah caat rek lay dégg. Ah. ñëpp léegi dañ siy wàll benn jour dama toog si oto moom moo raw abaa. ñu toog ci oto bi gel bi gisuma gelam de mi may dégg gelam ñëw rek caa ñemaw ma mu daan ko moo tur boobu de changel beneen <laughs> waaw wallaay mun ñu avancé ma ne que fas sama kanam tëngéej ma fas sama kanam damay bañ ba sonn ku nekk maam ku nekk war bu ñëwee ne maanaam nopp nga ne ko nopp ma la tey nopp ma la suba mu dem di. yi woo ma ne ma ak jigéen dina la dal. ma woo ko ne ko kaay. ah ah yow da nga def yàlla tax yow ndoxam mi la nga def yàlla rek tax da nga xamul noonu la ñuy def. ma ne ko kaay. ah may la sa sens baax. sama càmmiñ dañoo jaar. wax na dëgg man. fii buntu télé ne rek bu dee am na ku ne ci ligne bi na ngeen ko jox 77 549 52 90 ngeen dugg ñu waxtaane tey Saint-Valentin la ñuy waxtaane ku nekk looy waajal sa waay euh, nekk lan ngay waajale tey bis bi nga xam ni mooy bisu Saint-Valentin bi am na ku ne ci ligne bi nañ ñu ko jox salaamaaleykum allo allo na ngeen def ñu yor ñaari soxna moom damaa bëgg seen soxla yi taaj leen. waaw wax leen ki mën a kii. Eh, borom mbuur moo dolli si waat. Ah? dellu si waat. mbuur. Ah, yow mi doon kii sa tur bi yow mi doon. ah nekk. Hmm, eh, maa ngi ci jàmm. yaa ngi ci jàmm. waaw. nooy waajee Saint-Valentin bi laa wax tey. ah bëgg naa koo paase jàmm ak allo. allo. nan nga koy waaje allo. allo. nooy waajee sa Saint-Valentin tey. Saint-Valentin maa ngi koy waaj ci jàmm ak salaam. loo ci. ak wér. waaw loolu waxoon ah waxoon nga sax. loolu waxoon nga sànq. allo. <laughs> man ñii nañ ma rey ci biir plateau. léegi. ah muy dërëm. si. na si. borom bu lan nga préparé tey ci guddi gi lan nga nar nan nga nar a passé sa fête tey ak ki nga bëgg. ah bëgg naa fan ngeen xalaat dem fan restaurant wala da ngeen ànd dem. soir ah? fu neex rek. fu neex comme fan. foofu ci Mbour. waaw. ah est-ce que doo ñu invité ñun ñu ñëwaale ñun ak ñoom Mamran. invité naa jox nga ñu Aba de loolu la doon laaj nan ngay passé sa guddi daal. Aba kii. lii day am lii ah lii day am. waaw bëgg rek. ndeysaan naa dal ku ne yaa ñu ma ne. mbëggeel gi ëpp. ñu lay gërëm di la di la sant ci woote bi waa Mbour. waaw. yàlla defal la jàmm. amiin. nuyu lu waa Mbour ñëpp. ñëpp bul bàyyi kenn. ayca <laughs> ok Raj Malick boo ñu may clip rek ñu xool ko te ñëwaat léegi. ci plateau bi daal di yeggali waaw ñu may ko waa Mbour yëpp. di Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu te ju ñu ñeent dëkkal ma bës